yaakaar bu rëy rëy lañ ci am ne enfin justice bi dinañ ko réformer euh, ci ni nga xamante ni noonu la ko askan bi bëggee te plateforme bi nga xamante ni moom la présidence de la république lancé euh, ci xalaat ak euh, bëgg-bëggu président de la république muy jub jubal jubanti dégg nga léegi rek nee nañ recevoir nañ ci lu ma trente mille interpellation donc yée yéene ak yaakaar bi nga xamante ni moom la am jàpp naa ne yéene ak yaakaar boobu dafa daje boo xam population Sénégal dañ ko am Sénégal nag ñu sonn lool ci wàllu justice sonn ci lool jamono yi nga xamante ni at yi ñu romb depuis 1960 daanaka da dinañ am ay réformettes mais souvent duñu am de vrai réformes en profondeur. et cette fois-ci boo déggee ni président de la République waxee xam nga ne am na yéene ñu définitivement ñu régler ces questions-là justice dafa son dafa sonal ñëpp moom ci boppam euh, gis nga ko daanaka prison la jógee dem palais donc aujourd'hui il est très bien placé pour comprendre li nga xamante ni moom les dysfonctionnements qui existent au sein de la justice pour ñu mën ci indi nag ay réformes définitivement donc yaakaar bu bëri lañ ci am euh, nous avons la chance aujourd'hui au Sénégal d'avoir un président très jeune mais nous avons aussi la chance d'avoir un président boo xamante ni dafa confronté wu avec la justice euh, ci façon boo xamante ni jàpp nañ ne waruloon mën a nekk donc at yëpp daanaka ñëpp ñi nga xamante ni am nañ kaddu yëkkati woon nañ seen kaddu di lu ni nga xamante ni doon la justice doxee ñu jàpp ne loolu du sagu Sénégal ñoo am nag ay institution yoo xamante ni tamit yàlla baaxee nañu ko institution yooyu moom moo permettre la 24 mars ñu am une élection libre et transparente et démocratique donc loolu nag li nga xamante ni moom mooy ñëw nekk cerise sur le gâteau gën koo rafetal gën koo ñoŋal mooy ñu am justice boo xamante ni daanaka mbaxane dafay doone benn beneen mbaxane du fa mën a am li nga xamanteni mom la yonent bi salaatu wasalaam waxoon waxone kérok bamu défé fatxu makkah dafa waxone né képp ko xamanteni togn nañ la ak lo néew néew doole di nga am doole ba bañuy jël sa àq di la ko képp ko xamanteni togn nga togn nga ak lo am doole am doole di nga néew doole ba bañuy jël àqi jambour di ko ko et je pense que né balance bobu ñu amé té alcorane tudde ko mizan cette balance là équilibre bobu dafa war au sein de la justice benen bi aussi moy ñu japp né justice du tribunal lek lool réforme yi ci la bokk

donc justice warul yàq àdduna waaye justice dafa war a défendre ak ak yelleefu doomu aadama. globalement jéego yi jéego euh, nga xamante ne régime bu bees bi teg na ko naka nga ko jàngatee. Euh, am nañ ay raisons espérer ñoo ngi yaakaar ne Sénégal dina soppeeku définitivement. donc bu Sénégal soppeekoo ñëpp dinañ am jàmm euh, réew mi dina am jàmm nit ñi dinañ am jàmm. le roi Hassan II daf doon wax lu am solo te pour répondre ci jéego yi nga xam dafa am décollage par rapport li ñu de le roi Hassan II daf doon wax ne xaw ma développement li ma xam mooy ne nit ñi lekk ba suur naan ba màndi. donc nan la ñuy def tey ba autosuffisance alimentaire bi du nekk slogan waaye day nekk loo xam dañ ciy jëm bu baax a baax président de la république wane na yéene bi. ak euh, gis-gis bi nga xamanteni amna na ko ci japp naa ne denk nako ño xamanteni c'est des gens qui ont du métier qui ont le profil de l'emploi li nga xamanteni mom moy le foncier lol problème bu maga mag la Sénégal te djégo yum ci def amna solo amna na dëkk yoo xamante ni tey jii fa fato bammel sax doo ko am dañ nan la sa corps bi jël ko nga yóbbu ko donc on ne peut pas aujourd'hui admettre ño xamanteni ay étranger lañ ñu ñëw ci réew mi ñu daggal leen ay souf yu dul jeex wala ay prédateurs fonciers yo xamanteni bien de chez nous jël suuf su dul jeex daal di koy jël akimoo ko ba ndaw ñi tey amuñu 150 mètres carrés wala 200 mètres carrés boo xamante ni waxuma la fu ñu bàyyee waaye fu ñu dëkk sax mënuñu ko am loolu je pense que ne c'est inadmissible et loolu wane nañ ci aujourd'hui de pas euh, euh, déterminer euh, loo xamante ni war naa tax ñu rafet njort donc globalement je pense que ne aujourd'hui ñoo ñaanal le nouveau gouvernement di ñaanal son excellence le président de la République Bassirou Diomaye Faye ñu am une réussite totale par rapport à ce quinquennat bi nga sénégalais je reviens fraîchement d'une tournée dans la diaspora waaye yakar bu le sénégalais am les sénégalais de la diaspora les jeunes veulent du travail les femmes aussi ñoo ngi xaar tamid, autonomisation donc Sénégal dans son entièreté dans son intégralité am nañ yaakaar bu rëy yaakaar boobu